alhamdulillahi alkarim silmiman ala bi furudin wa waaw salaamaaleykum mbokk yi ni déglu di seetaan ngol ngol maa ngi lay gërëm di rafetlu it nag liggéey bi ngay liggéey Sénégal gépp rafetlu ko nag ci amul benn werante ndax réew moo gis am mémoire collective ngeen nag di dëkk boo xam ne bii dëkk bu yàlla baaxe la ndax diiru bañ ko sanceeg léegi macha allah benn dëkk jëmul kanam ngën des ga daaw walfawsi walamali bilmahrumi summa salaatu bisalaamin tabia ala allasi xasiya ana tabia halal la si man bi maraadi ixtada fi sirri wal jari yakunu muqtada huwa allasi haajara lil madina bi amri rabbi fasaana diina wasilati li maliki rafiici muhammadin xayril wala safiici وآله وصحبه النجوم الخاعر النفوس والرجيم هساوين اليوم يا واب خيرك في دارين لا يحاب وإنني يا بر يا كريم دائن وعن شكرك لا أريم منذ جسبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مشوبا إليك منك بك عنك Nous n'avons de chance d'être nous-mêmes que si nous ne négligeons aucune part de l'héritage ancestral. Héritage ancestral doon lu am solo wa ngeen saar xam ko lool di ci yëngatu di delloo maam cër bi mu am parce que bu dul maam dara du am ngën nag di dëkk boo xam ne bii dëkk bu yàlla baaxee la ndax diiru bañ ko sanceeg léegi macha allah benn dëkk jëmul kanam ngën des ga daaw loolu nag li koy waral mooy pas-pas yi ñi xam ni ñoom la fi maam ki nga xam ne mooy maam Madou Anta Ndoye Sarr maam Madou Anta Ndoye Sarr mi nga xam ne moo soson gën ngëm ngën Sarr ñi mu fi bàyyi seen pas-pas seen àndandoo seen juboo ak seen nangoo liggéey ak bëgg ñu bëgg dëkk bi moo tax ngën di gën a avancé rek macha allah ngën nag ko sanc mooy Mamadou Anta Ndoye Sarr nga xam ni moom mi ngi cosaanoo Gànjool ñii ni ma nga jóge dëkk bu ñuy wax Ndegeej Sarr ñii ni ma nga jëkk jóge dëkk bu ñuy wax Gambul Sarr waaye lu ci mën a doon rek Gànjool la cosaanoo ñëw fii li nga xam ni mooy particularité gox bii mooy dafa am dëkk yu ko yëpp yoo xam ne yëpp ñoo bokk maam ñoo bokk cosaan ñoo bokk lépp muy Guyaar Sarr di Kër Paate Sarr di Ngéen Sarr di Kalla Sarr ànd Ngën Sarr loolu it daf am solo loolu tax jàmm ji am fi parce que ay dëkk bu fekkente ni ay bokki nan la ñu ba noppi jànd rek jàmm rek ay am seen diggante loolu tax jàmm rek moo moo mës a am ci ci gox bi ah, bi ci des it mooy maam moo doon tëndooy Sarr. bi mu ñëwee dafa njëkk a dem kàlla nekk fa diir benn bis mu xëy fa ànd ci li ñu ma nettali parce que histoire dañ koy nettali mu jóge fa ànd ak doomu bàyyam bu ñu wax njugo faayoro saar ñu dem bu ci dëkk boobu ñuy wax njanja boobu ab xaritama fa ne wax maam Samba Sey Njaay maam Samba Sëñ Ndiaye am yéene maam Modou Coumba Ndoye am dëkk sancub dëkk ñu ànd ba fii ñuy wax ngën saar maam ma doon tu maam ma euh, ni ko fii gën moo indi ngën fii gën moo indi ngën ñu ni ngën saar foofu nag ci taarix dana am ñeneen ñu mu complété waaye li am solo nag mooy ngën bi ko fi gënalee ba noppi ngën dafa gën ndax damay wax ni baax baax na waaye gën a gën baax baax na waaye gën a gën xam nga keñ la gën bi nga xam ne bi daa am dañoo ngën dafa ay doom yoo xam ne kenn ku ci ne ma ko xoon ci njëlbeen da fas jom waaye nag kiñ ci tànn tey ràññi ko ci mooy ki tax li tax tax mooy Mbay Saar Mbay Saar nag ku ne xam na ko Sëriñ waa daan wax ni boo bàyyee fa nga dëkk loo am da nga ko lebal fu ko dul fay mbaa may ko ko yëllawul mbay nag loolu dalu ko dafa jóg rek ànd ak ki bokkam toppatooy bokkam li gën a bon ci àddina mooy fonk say bokk fàtte say fonk fonk sa bopp fàtte say bokk waaw fonk sa bopp fàtte say bokk boo am boo ko defee loo am da ko lebal ko dul fay mbaa nga may ko ko yelloo mbay dalu loolo tax tey bis bi ñu daje fi ñun ñëpp bi ci des mooy euh, sunu maam ja maam ma doon tundoy Sarr wàcc na waaye mbay wàcc na ndax mujj ku mu booy gàcce ku mu dal ku ne la mbay nag du ko mujjee ànd ak ki bokkam fii ci dëkk bi. lim fi defit mi ngi fi buñ ci ñëwee léegi maag sama jarbaat Ërif Mbaay dana am lu bari luñ ci wax parce que loolu nag moo am solo fan la ko maam mu doon tundooy Sarr sanc kañ la ko sanc de évolution dëkk bi ba fu mu toll tey ak lan la fi Mbay Sarr def ba tax dëkk bi toll fi mu toll loolu ku ne sañ na ko loolu it defe naa ni euh, dama koy séq nag sama jarbaat bi ñuy wax Ërif li ma ci njëkk wax mooy Mbaye Sarr Mbaye Sarr 1988 la tàmbali ni dëkk bu ne na nga dem waaye sama dëkk du des gannaaw mu ni li may njëkk a def 1988 mooy forage bi dafa panne mu jënd moteur defal leen ci ba noppi nag ko gérer boobu lañ daan wax lañ daan def alphabétisation fonctionnelle ñëw gérer ko jàng calcul jàng bind gérer ko seen bopp ba tey dëkk bu ne dina manqué ndox ba mu des ngën saar mën ba tukku nag di fay facture ndox ngën saar boobaak léegi manqué wul mu toog ba 1988 ba tey mu jënd benn ambulance bu bees tàq jox ko waa ngën saar ba léegi ambulance baa ngi daw boobaak léegi vingt wëlbatiku jël 3 millions ci médicament indi ko ci dispensaire bi ci poste de bi ba noppi di fay chauffeur ambulance bi boobaak léegi ay ati ati at Mbaye Saara jël salaire u ba tey ci 1948 mu jël dugub ji ni gàñ ak mboq mu dul gàñ indi ko ci dug dëkk bi neen na ci nit ñi na ko nit ñi yokki seen dund waaye yemul foofu l'an 2000 nag mbay ni leen sunu maam jàgg alxuraan la xamoon ak jaamu yàlla xam nga nu ñu defa nan jubli si jumaa ji tey ku dem si digg penc ba boo xoolee jumaa xam nga ni euh, jumaa ji ay millions yu bare ca dem waaye mbay yemul foofu 2003 ba léegi at mu jot mu def dotation en riz jël ceeb bu bari indi ci dëkk loolu defe naa lu am solo la waaye yëmul foofu korite gàmmu tam xarit ndawal gu ci ne mbay koy joxe jaaraama mbay sax weeru koor wu ne ceeb ak suukar ak tàndarma mën ba dëkk bi daj loolu it mbay saara wala bu ko 2004 mu ni nag dëkk bu ne day am hygiène nawet yor dana bari gunóor dana bari mbóot dana bari mu ne lépp lu produit insecticide bi wala leen ba service d'hygiène ñu woo service d'hygiène mu jox leen ko ñu def ñu pompé dëkk ba dëkk bi di boy loolu mbay saara ko def waaye nag yemul foofu mbay bi ñu sañcee communauté rural bi bi ñu xoolee di am na ay difficulté mu jël oto bees tàq dugal ko ci communauté rural ba président bi ak ñi ma àndal di ci déplacé wu waaye wëlbatiku nag defar benn boulangerie baax ci ngën saar boulangerie bi sax am na am na am na euh, ñu ko ci Louga waaye boulangerie baa ngi fii jël ay gone ngeen saar boulangerie pâtisserie viennoise viennoiserie la defar jël ay ay xale ngeen saar ñu jàngal leen métier mi ñu di ci liggéey ñenn yor le service commercial. loolu fi laa yem ba ca kanam ngol di la xamal nag ni euh, dafa am jukko yoo xam ni ku mu dal sa kilifa du du du yàgg loolu dalul mbay saar xam nga lu ngol. dafa am jukkoy ñeenti picc ñeenti picc yi baaxoñ la baaxoñ le corbeau jàmbu jóob le paon charognard mooy tan ak siq corbeau mooy baaxoñ coow la day bari te ata du am njariñ mbay boo déggee baatam rek njariñ la sarañaar mooy tan day fekk lu ñëpp bañ mu bëgg ko moom loolu dalu Mbay Saar moom li li li li ñëpp bëgg la bëgg li ay bokkam bëgg la bëgg jàmbu Jóob day firi du xam rek kuma ma gis dafa ni moo la gën li tax am naan il fait la roue loolu dalu Mbay Saar dafa wàcc boppam ba maase ki bokkam loolu dafa am solo lool. ah gannaaw bu ma sentee yàlla julli ci Seydina Muhammadu Rasulullahi maa ngi nuyu Alaaji Taal Ngol Ngol. alaaji taal ngol-ngol ah fi sa fi fi sa jëmm ji yegg soo trouvé su na foofu lépp nag ci cosaan ak bëgg sam réew ak dolli ci réew mi li ñuy wax développement nous les artistes les communicateurs traditionnels ce programme duñu ko tardé ndax lu ñuy dolli ko la lu ñuy jànge ndax li ngay génne ci cosaanu réew mi lépp nun mënuñu faa yegg mënuñu ko gis te daan ko dégg di ko jàng nag ci histoire nga dina ko woon jaxaran kon nag man maa ngi tudd alaaji fi Mbaay damaa kontaan ci yow gannaaw bi ma la nuyoo ñuy waxtaan nag fii ci Ngën Saar cosaanal Ngën Saar sunu maa Modou Anta Ndoye Sarr moom moo fondé Ngën Saar en 1865 fekkoon fi nag dameel ci jamonoy buur ya damel bi mu fi fekk mooy a Major Coro Fall di chef de promesse booba moo xew Major Coro Fall nag dalal sunu maam mu doon tëndooy fii ci dëkk bii sunu maam mu doon tëndooy nag it doon ku nitug diine xuraan bari xam-xam tabe ca xam-xam ba laabir ca lool Major Coro nag gis ko xam ni nun nag nun ceddo bëgg nañ borom xam-xam bu mel nii ndax ceddu dafa dëkk ci xëy ci histoire di gont ci histoire di lijjanti lu yoonam nekkam ak lu yoonam newul maa jor corondo mbaat nag a jël sunu maam mëranta saar nag def ko nagub sëriñ mu doon na góor yàlla gu ko mat sëkk lépp lum ko mas a ñaanal rek mu teg ci bëtëm fu mu mas a takkee jëm xare balaa dem rek laaj ko tagg ko mu digal ko ñaanal ko yebal ko mu dem am ndam ah <laughs> maajoor coro nag dëkk ak nag moo doon tundooy saar nag ah teeku nag bu baax a baax a baax a baax fii gannaaw ba sunu maam mu doon ta ndooy saar bàyyi ko dëkk bu nu yax gambul saar dajeeg maajoor coro faal fii ci ngen maajoor coro faal mos ko ca xam-xam ba mu neex lool mu téye ku nag ni ko nag damaa bëgg nag nga toog nag fii ma jox la nag ma may la ma may la nag dëkkuwaay ma dogal la dëkkuwaay te nga toog dëkk ak man ci la ko dogalee dëkkuwaay moom maajoor coro ma mënantu ndooy maajoor coro boole koog sëriñ mband jóob ca la ko dogale nag fii mu dëkk tey ñu ko ndax fii baax na mu ni ko fii moo gën fii gën moo indi ngën saar fii gën fee gën moo indi ngën saar fee gën nag ba mu indee ngën saar sunu maam moo doon ta saar fee gën joojee mu waxoon ah, ah, ah, ah feeñ na ndax fi dëkk yi gën ci senegal ngën gi ci la bokk. duddi Bawol ñëw tey ci ngën saar fekk si fii suñu xarit suñu frère Mbaye Sarr bi nga xam ne mooy président directeur général bu Sénécartour mu wooñu ci bis biñ fi organisé dafa am ziar bu mag bu fi am ci dëkk bi boo xam ni ki sanc dëkk bi moom lañ koy defal mu woo ñu pour ne dafa buggoon ñu defaale consultation médicale waxtaan nañ ci lu man ñaari at wante ren la ko yàlla dogal soo gisee ñu sawar ñëw fi dafa fekk nii ñun dañu nekk ay partenaires ak Mbaye Sarr Sénécartour Euh, mille 2007 ba léegi fu ñu soxlaa car pour yóbbu suñuy médecin ak suñuy infirmier ak suñuy sage-femme ci Bawol pour organiser journée médicale moom daf ñuy jox car gratuitement ci duñu laaj dara loolu nag ku la ko defal su soxlaa bisam da nga ci war a taxaw moo tax ma ne ko woon président ñun dinañ def loo xam ni musuñu ko def mooy indi fi quatorze spécialités en médecine loolu docteur dina ci ñëwaat léegi loolu moo tax ñu ñëw fii rawatina nag ñun ku nekk xam nañu ci euh, consultation médicale euh, wante dañu nekk ne ñun suñu réseau bi ci loolu lañ ñu gën a xamee ndax dañoo fonk wérgu yaramu doomu aadama yi ba nga xam ni xam nañ ni état bi loxo mënul daj fépp moo tax ñun lu ñuy def rek dañuy jàppale état bi di indi ay médecins indi ay médicament pour dimbale population parce que xam nañ ni soxla nañ ko ndax santé problème la ci Sénégal loolu moom foo ñu nangu ko léegi nag loolu moo tax aussi ñu sawar ci ñëw pour fekk si Mbaye Sarr pour jàppale ko ci bis bi pour moom dafa bëgg waa Ngën Sarr ak i mbokkam yi ko wër yëpp mu yéene leen ko ñun aussi ñu jàpp ci. loolu moo tax surtout ñu ñu gën fi ñëw. ñun ay taalibe lañ ci rek ñëw répondre à lappel de RECAP réseau des cadres du Baol via maître Diakhaté et professeur Lamine Gueye ñoom ñi ñëw pour jàppale tonton mbay Sarr mi nga xam ne moom moo initier la journée pour euh, faire pour jariñ euh, faj population Ngën Sarr euh, may leen ay garab te kenn du fay dara ñun loolu moo ñu ci indi te biñ ñëwee eh, yàlla def na ni mooy yëpp fekk nañ ko fi. parce que euh, liñ am ci ay spécialité tey fii jafe na di am ay spécialités dans une campagne médicale parce que y a quatorze spécialités yoo xam ne tey teew nañ fi ku ci nekk mi ngi consulter yàlla def nañ aussi en terme de médicaments la pharmacie est bien dotée am na garab yu doy ba ku ci nekk euh, ku kun la xool garab yàlla lay war a faj yaakaar naa dina fi nañ ko fekk ci pharmacie bi ñëpp ñi nga xam ne aussi Euh, pathologie chronique lay am dañ seen seen traitement day laaj après bu ñu jugee fii mu suivi loolu aussi euh, joxe nañ ay instructions pour patients yi nga xam ne soxla nañ taxawu ak ndimbal incha allah ñu jël seen tur pour bu ñu jugee ci journée bi xool nu leen di jàppale ba loolu nga xam ni mooy feebar bi leen daal ñu jëm leen cee dimbali te comme ñi fi jógee Dakar lañu jugee euh, ci hôpitaux différents yi yaakaar naa lu fi waaye mën a am rek incha allah dinañ fexe ba sunu kattan. Euh, def jokkook sëñ Sarr def ci li nga xam ne moo gën ci assistance. Hmm? Euh, présentement dina xaw a jafe wax leen ñaata lañ consulté waaye euh, dépassé nañ largement juróomi téeméeri nit te consultation yaa ngi continuer parce que y a plus de trente médecins qui consultent avec des dentistes avec waaw lépp fanweeri médecins ñi ngi consulter. ak ay dentiste ak ay infirmier ñëpp ñu ngi ci consultation yi te flux bi mu ngi dem bu baax a baax a baax yaakaar naa ni bu nu jugee fii am na yaakaar ne danañ constaté lu ëpp junni nit te ñu ngi ci xeetu feebar yi bari na parce que diabète ñooy ëpp ak mu arthrose ci nga xam ne ñooy mag ñi ak problème prostate yi si mag ñi yaa aussi am na aussi ay ay ay ay asthme ay ay bronchiolite feebaru xale yi nga xam ne feebaru noyyi la ak feebaru der yooyu mooy yi nga xam ni yaakaar nañ mooy fi ëpp ak carie dentaire yi ak cataracte cataracte ci ophtalmologie mais yooyu yëpp yi ki ëpp yàlla def na ni am na garab pour fay pour faj ko te incha allah ñi nga xam ne day nécessité un suivi dinañ leen porter toute assistance bi nga xam ne moo ca war. dafa am di doomu tund wi. Euh, xalaat bi li ñu ci dugal mooy dimbali gox bi ndax euh, xam nañu ni jàngoro ji bari na euh, te nit ñi dematuñu ci docteur yi je ne sais pas xaw ma moyen yee manqué xaw dañoo sawaru moo tax bi ma waxtaanee ak président Diakhaté ma ne ko bisu ñaan boobu nu ñaanal suñuy maam soxla woon nanu ñu leen dimbali ci wàllu wér-gu-yaram wàllu wér-gu-yaram nag mooy euh, ñëw seet li leen jot consulté leen may leen i ñu yi ñuy soxla ba kenn ku ne boo fi jógee xam ni gis nga ci sa bopp euh, gannaaw ba loolu wee dama leen di sant yéen di gërëm siyaar euh, bi def nañ ko yooni yooni yoon mais amoon nay jamono nag xawoon nañ ko pause mais année yi nañ ko démarré waat mais ci tax ñu koy def mooy sunu maam bi nga xam moo sañ ci dëkk di ma doon tëddooy saar ku dëkk ngeen rek moo la meññ wala moo meññ ki la meññ boo fi dëkkee moo la fi indi la ngay séq ba mu indi la fi fekkewu ma naa ni moo la fi indi looloo tax nu koy ñaanal di ñaanale suñuy waajur ñu boole ko muy benn ñaar jagleel ko tund ku ne ci juróom-ñaar fukk dëkk yi ñu yéene ci yiw bu ñu paree ñu yéene ko réew mi lu ci réew mi lu ciy mu dem. dafa wax léegi lu am solo ma tënk ci ñett ndax dafa wax ni doomu aadama feek mi ngi dund mi ngi soxla ñett mi ngi soxla dundam gu muy xewloo mi ngi soxla sécurité mi ngi soxla santé benn santé bi mooy bu soxla dee ñaar rek wér a am soxla dee ñaar wér a am moom nag sante wax dëgg yàlla bi nga ciy jëf lu mu ci man lii consultation bi def na ko fi 2011 2010 yëpp day ànd ak final bu def ko kooku ah, wax dëgg boobaak léegi dugg ci ah, wàllu dund bi mooy de deux mille quatre vingt dix bi nga xamee ne ambulance bi mi ngi koy inauguré dafa bokk boole ñetti camion ñetti camion benn bi mboq la def benn bi dugub la def benn bi ceeb la def mu boole ko moom ci population bi nga xam ne moo war ngeen juróom-ñaar fukki dëkk yi ba génn sax dëkk yi nga xamee ni ah bokkul ci commune rurale bi. boobaak léegi loxoom nag jógu ci ba léegi ba daaw ci koor da ko daan def mois de août ndax da mois de août ci la baykat yi nga xamee ni seen loxo dana dem ba diggante bi dañ daan jaay seen semoir di dunde dañ daan jaay kii seen kii léegi nag mu ne ah naa ko def koor ndax kuy jaamu yàlla la ca ëpp. koor moo ci moo ci dàq chaque mois de koor ceeb da ceeb dana ñëw dégg nga ah sécurité itam wax dëgg yàlla bi nga tabax fee benn poste gendarmerie booy dugg ci dëkk bi kookoon ñoo ngi ko xayma valeur cinquante cinq million ndax dafa fas yéeneen heure bu pare mu boole ko pick-up boo nga xamee ni dana ko mën a daan ko mën a daan ko mën a yor pour seen intervention kon wax dëgg yàlla li nga xam ne moom la wax mooy yéene na jàmm bëgg na jàmm bu sañoon li muy dox ci nit ñi population bi bu sañoon ñëpp am jàmm wakun wali fi layaati wal ba suñu maam mu doon te ndooy moo ko sanc wala tafia fi booru mbataa حافظا واجبا وواقيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومرشدا moom tuddee woon ngeen gën la ko tuddee woon fii fi gën fi mu doon wër. boobu la ko ay mille huit cent yooyu ay mille huit cent yooyu. fanu jabaay muxlisiina la siyaab waaw li ni saadata nasoora borom dara ji xam-xam la woon tamit aw darara ku ku daan ku ku jeexaloon alxuraan la ak téere yi ko bi mu fi nekkee bi fi moo gën sët yi ak jarbaar yi ñëpp la fekk fi la nekk nekk nekk nekk nekk dama naa la ba muy dem ca Serigne Touba Njaareem topp ci moom da doon da doon moom dafa amoon xam-xam ba fu ñu dégg borom xam-xam daañu dem xooli ko ay critique wala mu dem natt euh, ci moom ay xam-xam dellu ko ca mbaa mu jóge fa dem xam ne moo ko raw ba mu defee da nga naan nangam fan juróom-ñaari fan ñu ñëwee ñu ngi taaw yëpp ñu leen man de gis naa ko ma sut fuuf waaye nag man wéy naa. waaye bu ma doon ndawa dama topp ci kenn ku ci jaaree nga taa yu bare jóge fii dem jaareen fekk fa seen xibaar ñu bari dellu si wuñu nag amoon na fa ku ñu wax Serigne Mbaye Sarr ñaara jëkkëram ku ñu wax Serigne Mbaye Sarr ak Serigne Dialli Sarr suñu dikkee ñoom ci Serigne bi toog ba di joxe loxo ni ko daal dina ñëw si ànd ak yow ci liggéey bi mu laaj ndongo kenn ki la mu bi mu jógee rek gaali saar la tudd moo tudd mënu ko gaali saar mënu ko Babacar Saar waaye moo waral saar ak Babacar bi mu jógee fii ci Ngën Saar kenn ki moom mbay saar la tuddoon kenn ki moom gaali la tuddoon bi ñu mu ne ndongo ba mu gën a ndongo li la mënu ko gaali saar mënu ko Babacar Saar waaye mooy ñu ay maam lañu am na ci ñoo xam ne ñu ngi Thiès ñu ngi ku ñoo Baye Mour Sarr ca Thiès ñenn ñi ñu ngi nag suñu maam loolu suñu maam bi nga xam ne moo jur suñu waajur ñu koy bi sunu maam boobu génne àdduna sunu maam sunu sunu maam bi sant ngeen bi mu génne àdduna mu doon Mor Ndiaye remplacé na ko fanweeri ak juróom moom moomoon dëkk bi moo jur sama waajur bu góor daan Fati Fall Mor Ndiaye moo yilifoon Gëm Saar yilif Goya booba ci jamono sax maa ngi sottee ci man ñi ñu ne mu ngi tuddee Ngën Saar Paris tuddee al mubaaraka noonu la ko tuddee woon moo tax ñu saar yi tuddee ak léegi ku moom moom gën boo magee ki moom gën it te sant saar mooy moom biyaar bu magee benn dëkk la juróom-ñaari kilomètre ci yàlla mayoon borom xam-xam la woon ñu ne dañoo judd fekk càllale gi ak mbokk ah di yàlla defee nii fekk sunu waajur sunu waajur itam bi mu fi nekk yàlla def ñu ngi ko toftaloon bi waajuram bi bi Mor Ndiaye génnee àdduna ñu ngi ko toftaloon ci benn magam bu ñuy wax Ablaye Sarr ñu koy wax Ablaye mu ngi dëkk Kër Daame jëmm jooju moom waajuram mi ngi ko mi ko botte ko bàqale woon mu dem ci Serigne waa Serigne Touba da koo féete yi doy waar sama papa nettali mu ñëw ngeen am na kilifa yu mag ci Touba dañu laajte Abdoulaye Sarr ndongo li nekkoon ak ko na am na ci ñoo xam ne seen i doom fii la ñu yónnee ñu dal ci alxuraan yàgguñu fi nag ñu fi dal alxuraan te jamono bu ñëw seen waajur war a génn àdduna la ñu euh, bi mu feebaree sama baay rek la nekkaloon sama baay xale sama bàyyi nee na ma sama benn magam bu ñuy wax mu doon bàyyi ma bàyyi mu doon ta bu ñu feebaree ba jaaxal sama bàyyi mu ta mu ñëw togg ci fas la ko togg bi yaram bi sutantee nee na dorob la jël yeew ci ndigg yeew ko ci ndiggam ci Ablaye fas wi yóbbu ko dëkk bu ñu naan kër baame déedéet bi mu ñëwee dawal otoom ba ñëw ngeen dafa ne fu ñu rob Ablaye Sarr sama baay nag boobu yàlla mayu ko année bu mu mënee wax ak sëriñ bi mag ñi ñoo doon wax ak sëriñ bi ni ko Ablaye de bi mu feebaree ba feebar bi ëpp ko doole dañu ko delloo woon kër baame kër ndeyam fu faatoo ñu ko keroog sëñ Samba da leen ne ndaxam waa ngeen sàggan ngeen su ngeen xamoon sëñ Masamba Mbacke bu ngeen xamoon Abdoulaye Sarr fii ngeen koy rob di ko siyaar awal yoo xam ne loolu man ñoo ko nettali nag fekk mu dëkk bi noonu lay doxee bi sunu maam wàcceeb liggéey rakkam ñëw dëkk bi noonu lay doxee ba ci ñun ñi sunu benn baay bu ndaw bu ñuy wax baay Mayoro Sarr mooy borom dëkk bi. njàmbur suufas njàmbur ci nekk li mag eh, dañuy wax ni Sëriñ Tuubaa suuf si njàmbur barke nga waa njàmbur nag wa man faa nekkul haadin muslim. ndax man ñaa ngi may nettali keroog. bi saxaar bi ñëwee gaare gaaru Louga. لمن بدفن اهتدى Sëriñ Tuubaa ngi nii ci gaar bi magi njaam moom danañu ko boo dem bàyyil ñu dañuy jàpp dañuy fetal jiyaar ak tubaab bi saxaar gi taxawee Sëriñ Tuubaa du bañ dañ ko dugal ci bopp saxaar gi li coow li bare tubaab yi xam nga dañoo bare pexe ñu jël magi njaambur yëpp sol leen ci wago yi ñoom ñëpp toog ku ne ngay xas naan dañoo nar fetal yaa tubaab bi dee korosé wago yi ñoom comme suñ tubaab dem na yàgg nañu ni ci wago yi suñ bi daa dee korosé tubaab bi daa dee korosé wago yi bi suñ bi ne bàyyi fi nga xam ne magi njaambur la kon njaambur yaa daafi alaswaar wallak daari bil Mustafa fa kulle suwaan daari waaxin li man banaw binaarabi juróom ñaari at yëpp ñaari li ci ëpp ndax dafa jege décembre li ci ëpp nawet ba dana gàntu waaye nawet bu gàntu amul solo li am solo mooy xéewal xéewal am solo moo tax njaambur boo déggee seen mère bu nga dugg ci kër gi xool nit ñi xool jigéen ñi xool da nga yaakaar ni ñoom teggee yu déedéet xéewal la ñu am. ما القناعة بنفس تسبو وزوجة سالعة تعين فلا تقاول الريا معين وزوجة سالعة تعين فلا تقاول بالريا معين فاسبلا كالنفذ الرقابة هل يما جلت عني عيسمت واذبب سرعة لخاتمك كملا waaw li tax ma mel noonu ci dëkk bi xam nga dëkk bu ko sa maam seen fi sa sama baay ñu mu mokkal baay ñu mu bokkal waajur moo ci gën a nekk ndaw waaye ñëpp ko jox cër amul woon ab jàll sama baay yàlla mayoon na ko jikko joo xam ne ku mu jaxasoo doo ko bàyyi ku mu gëm jikko gënoo ko jikko sama baay ko rafet jikko la te boo doon wër ci tund wi tudd ko ñëpp daañu ko confié tiis woo mën am ak soxla soo mën a am ak meer moo mën am boo waxtaanee sama bàyyi da nga wàcc mais loo xam ne da nga wàcc mel ne mel ne jaan da nga yéeg ju rafet dafa daan wax ne moom lépp koo xulul yaa boo fa cosaanoo war koo moom Louvain ku la tee ku la ku la taxaleeg ku ne fa mu la jëmee boo ko seetloo ay bokkam kon bu ma fi juddoo yaroo fi ñu ya ma war fasugata fii war naa fi fasuga tax sama baay jënd na fi mbaam deux mille deux cent cinquante du ma ko fàtte ba tey sama baay jëndal na ma fi saretu nag lu ne jëndal na ma ko ndax maay taawam te ku bëggoonu njàmbaar rek kenn mënu ko amul jàll nag waaye jàmbaar dëgg ak su ma diggee dëkk bi yëpp bi benn sama maam mu doon te Mor bi ma la wax nit ñu bare ngi ci dëkk bi seeni maam sama baay maam a leen delloo si xam nga mu delloo si dafa yor dëkk bi foo ne fu la sa nijaay yóbbu mu tàllal loxo daggal la kër ñi la sancal jox lay tool ñi la bayal loolu moo tax ma bëgg dëkk bi te su ma sottee ci borom xam-xam yi ñu ngi leeral ne yonent bi nee na sopp sa dëkk bokk na ci gëm yàlla te man damaa bëgg gëm yàlla na soo nit koo ni gëmu yàlla mu mel man damaa bëgg bokk ci ñi gëm yàlla te am na seex bu mag nettali ma ci waa waajuram dafa ñëw ci Serigne Touba ne ko Mbàkke dama bëgg nga wax ma li gën ci àdduna ma di ko def mu ne ko lu di defar ñam xéewal yi di defar ay xéewal di ko jox jaamu yàlla yi te bu ci wut xeej yi ak seen mu ne ko Mbàkke bi nga ma waxee lu gën ba noppi xanaa bon de bëggoon naa nga fàttali ma li gën a yées ci àdduna gën a bon ma moytu ko mu ne ko na nga moytu lu yàlla dogal ci jàmm mu naqari la nee na loolu sa jàngoro ju dul la dëkk bi nag ñii dama bokk ñoom bàyyi ñii di samay baay ñii di samay nijaay ñii di rak kon fu seen loxo yeggu te xam naa ne dund gi euh, xam naa gëm naa ne dund gi du wéy gëm naa ne àdduna lu ma am dama ko bëgg a bokk sama bopp su kenn du leen ñeer kenn du ñu ñee kenn dama bëggoon ñëpp ñee te gëm naa ne bu ma yàlla joxoon xéewlu jaam ñëpp am naa fitu joxe man lu ma bëgg naa ko bokk nit joxe damaa neex su ma koy jox damay kontaan te xam na bu ma joxee jeg seen nag man xaw ma ku ma bañ ak ku ma bëgg soo bëggoon a la ci man sax di ma laaj fexeel ba jéem ba bañu wax ni da ma maa bañ su may def ñaaw laay gën a defal ndax damaa xam ne da ngaa juum rek ndax defu ma looy bañ len dong laa def sama point fort mooy liggéey ak njub loo ma seen ci àdduna ci liggéey laay ne bëgg koo teg ci joonu njub lu ma def lu loolu damaa juum ku mu juum nag amul waaye su ma defee leneen damaa juum te bu may liggéey du ma tay kon nag maa ngi lay sant gërëm di la nga xam dëkk bii bokk na ci dëkk bi ma gënal ci dëkk yi su amoon li gën ci àdduna mbaa ma man koo yóbbu ba mu mel ne Medinatul Munawwar dinaa ko def mu mel ne Medinatul Munawwar ndax Medina dëkk bu ma neex la 2000 bi ñuy bi jumaa ji nag lii laa waxoon ngën saara ma gënal ci dëkk yi foo ma séen foo ma séen dox mbaa ma wàcc fa ngën a ma gënal damaa ma bëgg ma neex fu ma fanaan fanaan ngën a ma gënal ku ma jàppale jàppale waa samay bokk te xam naa fi ñu ma teg kon ma fu ñu ma teg danaa leen teg fu ko raw su ma dajee gone damay jox ñaari loxo su ma dajee mag mu jox mu wekk ma su ma dajee jigéen mu jox ma sama cër kon dama leen a war a delloo seen cër ngeen ñoo ma bëgg dama leen di bëgg ku la bëgg te yëg ko man loolu rek laa def yaaram ku ma bëgg ci ngeen saar nga may bëgg ku ma bañ ci ngeen saar nga may bañ du ma leen bàyyi bëggee gi fer